Déjà kaay la. Waaw. Waaw ñëw na.

ñu ñu bàyyi leen ngeen kàddu kàddu yi ñu bàyyi itam am nañu ak kàddu kàddu cant mën naa koo daal di tënk rek kàddu cant gi nag ndax bis bii bisu sant la rek ndax ndax nee na waaw nit il faut nga man lam yaskurullah la yaskurullah ñun nag dañoo bëgg a sant ñi nga xamante ni suñu borom boole nañu ak ñoom ci àdduna ñu am loo xamante ni defal nañu ko mbooloo mi toog ñu war leen sant waaw ah, ci jiital nag sang bu baax bi nga xamante ni Mbacke Balaye sa sama wëllëre la sama xarit la ah, sama sëriñ la ndax nag bari na loo xamante ni saa yu ma koy dëgmal dañ ci waxtaan muy waaw saa su nekk itam suñu ñëwee ci kilifa bi suñu seet say ñun dañuy mel ni suñu biir waaw suñu biir saaka ci nekk wala suñu biir kër ndeysaan yaatal nañu mu ngi saa su ne mu ngi nemmeeku ñu koy sant tamit buñ ne ko Mbàkke Balla lii de nangam la ak nangam mu jóg kon dañ koy santaat bu baax a baax a baax ah di sant euh, sama benn wëllëre kii boole ak moom ndeysaan mu nekk bu baax boo xam ne la muy def fële ca ñaari tali benn tali jàpp tool boobu ku ne xam na ni. tout tànk ya koy yëkkati xasida ba ci mag ñi ñoom ñëpp moo leen moo leen moo leen moo leen jaboote ba yi pare ñu nekk ñu am taalibe ñu am yar wax dëgg yàlla man ma yëg sama bopp ci ñoom moo tax Mbacke ba moo tax Fall yaram ma siyaar ci ko mu ne man lu ma mën def dinaa ñëw teew loolu sama bés ma lay sant bu baax di la gërëm ci teewaay bi di sant nag oustaz oustaz mii yàlla boo ma booleeg moom mu dëkk ci koñ bi nekk sama wëllëre itam saa yu bëggee wàcce kaamil moom la ñuy woo mu ànd ak du tànkal sept heures lañ ñëw sept heures lañ fi ñëw wàcce kaamil gone yi dellu moom mu toog bokk ak ñun jabo jotaay bi kon nag ñoom lay sant bu baax defe naa ne tëjëguñu kii bi xajma bi waaye am naa daañ ci ñëw léegi ah incha allah ci waaw waaw waaw waaw waaw mu ngi noonu kon mën naa ne di sant nag ci sama ginnaaw sama dëkkandoo la jaraaf mu nekk ku baax ku yaatu koo xamante ni dafa ub jaboot gi ne ci koñ bi yëpp nekk suñu wëllëre ñii ñëpp ñii moom la ñu euh, suñu wëllëre bi boolee ndax nag ñun ci njaboot gi lañ bokk di leen di sant bu di leen di leen ñaanal it ngeen yaay ci a ndax suñu borom moo ñu boole ak yéen waaw waaye nag comme dañuy kii ñu ñu bàyyi leen ngeen kàddu kàddu yi suñu bare itam am nañu ak kàddu kàddu cant mën naa koo daal di tënk rek kàddu cant gi nag ndax bis bisu sant la rek ndax ndax nee na waaw nit ki foog nga man lam yaskuru nas la yaskuru la ñun nag dañoo bëgg a sant ñi nga xamante ni suñu borom boole nañu ak ñoom ci àdduna ñu am loo xamante ni defal nañu ko mbooloo mi toog ñu war leen ci sàmm waaw ah, ci jiital nag sàmm bu baax bi nga xamante ni Mbacke Balaye sa sama wëllëre la sama xarit la ah, sama sëriñ la ndax nag bari na loo xamante ni saa yu ma koy dëgmal dañ ciy waxtaan muy waaw saa su nekk itam suñu ñëwee ci kilifa bi suñ seet say voilà ñun dañuy mel ni. suñu biir waaw suñu biir saako ci nekk wala suñu biir kër ndeysaan yaatal nañu mu ngi saa su ne mu ngi nemmeeku ñu koy sant tamit buñ ne ko Mbàkke Balla lii de nangam la ak nangam mu jóg kon dañ koy santaat bu baax a baax a baax ah di sant nag Fall Yaram bi nga xamante ni ndeysaan euh, sama benn wëllëre yi di Aba moom moo boole ak moom ndeysaan mu nekk bu baax. boo xam ne la muy def fële ca ñaari tali benn tali jàpp zone boobu ku ne xam na ni euh, tout tànk ya koy yëkkati xasida ba ci mag ñi ñoom ñëpp moo leen moo leen moo moo leen moo ba yi pare ñu nekk ñu am taalibe ñu yàlla ma nit ma moo tax Mbacke ba moo tax Ba ma jaar ci ko mu ne ma lu ma mën a def dinaa ñëw teew loolu sama bés man lay sant bu baax di la gërëm ci teewaay bi di sant nag oustaz oustaz mii yàlla boo ma booleen dëkk ci koñ bi nekk sama wëllëre itam saa yu bëggee wàcce woo mu ànd ak du tànkal sept heures lañ fi ñëw sept heures lañ fi ñëw wàcce kaamil gone yi dellu moom mu toog bokk ak ñun jabo euh, jotaay bi kon nag ñu lay sant bu baax defe naa ne tëjëguñu kii bi xajma bi waaye xam naa daal di ñëw léegi ah incha allah si waaw waaw waaw waaw waaw waaw mu ngi noonu kon mën naa ne di sant nag ci sama ginnaaw sama tëkkandoo la jaraaf mu nekk ku baax ku yaatu koo xamante ni dafa ub njaboot gi ne ci koñ bi yëpp nekk suñu wëllëre ñii ñëpp ñii